sa bésu maam di mawlana ci sa bésu maam di yente la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi namoon nañ la sëriñ bi jàkkaarloo bi lu ñu yàggoon na bëgg la waaye lu ñu yàggoon na xaar la kon alhamdulillahi rabbil alamin bi la yàlla mayee gudd fan wér ak wérle ba nga dellusiwaat tey ci jotaay gi muy jotaay bi nga xamante ne sa mag sa kilifa sa sëriñ di mawlana cheikh muhiddin abdul karim alfa samba jàllo bi nga xamante ne tey boo ko tuddee rekk tur gi rek présenté na boppam mi ci biir réew mi ak ci bitim réew turam yegg na fépp ci àdduna gi wuutu ko ngeen ci wutu moo taxit moom duñ ko fàtte mukk dañoo bëgg balaa ñoo tàmbale jotaay gi képp ku nekk ci tànt gi wala képp kiy dëgg suñuy kàddu ak foo mënta ñu sellal yéene yi jàng faatiha julli ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñu jàng fukk lixlaas ak benn benn bu ci nekk na ànd ak bismillahi rahmaani rahim buñ ci noppee ne julli ci yonent bi sallallahu ñu ñaanal ko yàlla yërëm ko yàlla yaatal bàmmeelam yàlla leeral tëruwaayam waaye yàlla yéege ko ci maqaama yi ci martaba yi gën a kawe ci martabay barzax yàlla mën na ko yàlla am na ko yàlla sañ nañ ko yàlla nañ ko yàlla defal kon ñu def loolu incha allah bu ñu noppee ñu jottali kàddu yi salla alayhi rabbuna wa sallama mastaqbalat awdiyatun sama wa mantaha amrun wa tamma wa anqada wa ala abi bakrin faqad fadlan wa tasdiqan lahu mus aslama wala fata omar alladi bi jihaadihi fillahi xalla bi sayfihi mastabhama wala shahidi daari usmaan alladi minhu qad istahya malaikatu sama wala aliyin bal wa ala abi sibtayn haydaraka alladi ma zaala fi lhabri daybun farqama ma badru tammin fi dujal leyli ada wal aali wa sahbil kiraami atqiyaa ahlu diyaanati wa siyaanati wal xayaa maa laaha barqun fil abaatili aw xibaa wa tanaawara barqun fi gibaa aw qaala zu karamin li dayfin marhaba ayuha saada alkiram xayaakum allahu taala bisalaam wa axyaana wa iyaakum fi ljannati daar assalaam salaaman ya bani qawmi salaaman yafuuqu sazaahu fi nadri xuzaama uxayi jam'akum sharqan wa garban bani salaamu laziltum kiraama assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu salaamun fi sanaayahi sururun wa saamihu naajin min al ahzaani fi zulaali bal ka ruuhin sarrat fi jismin mu'tadilin mizaahin fa ahlan wa sahlan wa marhaban kullu ma nasmata saba banaytum fi aqsa al qalbi malhan wa maghraba malhan wa mal'aba fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kullu ma nasmata saba banaytum fi aqsal qalbi malhan wa malaba fa asa bawakihi wa taba simaruhu wa amran amartum kana bil amsi mujniba la fudda fikum ghar wala sar alaykum sar بارك الرحمن في أعمالكم ورعاكم في ذهاب وإياب لا زال ذكركم في سؤالي ولا زال حبي لكم في زيادي yéen mbokk yi mbokk yi jullit mbokk lislaam mbokk pas-pas ñoo ngi jiital sant borom bi wa taala borom bi nga xamante ne sant ko rekk moo ñu war suñuy dund waaye ak suñuy fàddu lenn rekk lañ am ci moom mooy sant di ko sant suñu yëngu waaye di ko sant suñuy dal di ko sant suñuy nelaw waaye di ko sant suñuy yeewu mboole mu xaaj yi sant yi ñu koy dëxëñ def ko benn sant di ko ko sante moom borom bi doonte suñuy sant yokkul ci nguuram dara mooy yàlla mooy borom sant ba tax na boo ko sant lu war la ci yow ngir lépp lu nga xamante ne jaam da koy def ci àdduna ak àllaaxira lépp damay day jeex ba mu def sant borom bi subhaanahu àdduna bu ñuy nekk nii di ko jaam di julli di woor di aju màkka di génne azaka di def lu baax di jokk mbokk lépp lu nga xamante ne mbooleem mbir bi nga xamante ne mu nga aju si lu baax buñ koy def bu ñuy faatu dina jeex bu ñu demee yombal xiyaamata lu ñu fa fekk woon muy lu baax ba dina mos a jeex lenn rek moo dul jeex mooy alhamdu mooy sant borom bi subhaanahu comme yàlla jooju sant bi da koo jël jox ko yow doomu aadama mu ne na nekk lu war si yow sawaaun da nga am wér bu yaram wala sawaaun danga jage jagedi waaye lépp looy def ci àdduna lu dul sant ma man borom bi soxla mu loolu si yow moo tax julli bi sant ko la ngir julli bi ngay julli kàttan bi ku la ko jox taxawaay bi ku la ko jox xalaat bi ku la ko jox yëngu-yëngu xarakaat yu ngay def kan mooy ànd ak yow sa xarakaat yi kenn rek la mooy buuru subhaanahu wa taala woor bii ngay woor tamit di muñ xiif kan moo la may kattan boobu énergie boobu kan moo la ko may boo defee ay heure heure lekk woo kan moo lay ànd nga mun a am lu ngay nokkee kan moo la koy defal du benn doomu aadama du médecin bu la koy defal wala du borom xam-xam bu la koy defar wala lu sëriñ bu ngay ñaanal déedéet kuy ànd ak yow sëy mboolee mu anam kenn rek moom mooy buuru subhaanahu wa moo tax moom mooy laa ilaha illa allah amul benn buur ku dul moom moo tax man di bàyyi xel nit ki mën ngaa caali waaye caalit bu ëpp baaxut mën ngaa kontaan si mbir wala mën ngaa bëgg sa sëriñ wala mën ngaa bëgg sa yeneen wala mën ngaa bëgg sa waay waaye caalit ba waajooji nga teg ko si place yàlla loolu éeral la de yàlla moom mooy allahul a assamad kenn rek mooy samad moom mooy moom subhaanahu wa kon yàlla jooju dañuy doon géwalam di ko takk di ko tàgg di ko kañ di ko bak saa su nekk di ko tudd di ko fàttali suñuy biir suñuy jeego waaye mënoon nañu ko matal kon yooyu yàlla ñu ngi lay ñaan nga def ñu dëgg-dëgg jaam donte ñu de ñu nekk say dëgg-dëgg jaam yombut waaye ñu lay ñaan nga may ñu xel boobu donte mënuñ pratique yépp motal ko waaye ñu góor góorgóorlu si ak tuuti kon ñu ngi lay ñaan say xéewal ak say barke ak say teraanga bu mu deñ di sotteeku si kaw xeet yent moo sallallahu alayhi wa sallam di julli si kaw sang yi sang yi mooy jëmm ji nga xamante ne moom rekk moom lañ woo wala wooyee Ahmed waaye ka kadalika moom lañu war a wooyee Hamid ni ko liñ ko war a wooyee Mahmoud waaye ni ko ko war a wooyee Hamad wala Mohammed moom rek keneen ku ñu wooyee Ahmed wala Hamad wala Mahmoud waaye ñu ngi taasu si barke yonente joojale mu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir moom mooy ku gën a sant yàlla ci jaam yi ba yàlla tuddee ko Ahmed moo tax benn benn borom xam-xam ku ñu wax Muhammad Mutawalli Sharawi mu ne yàlla dafa natt yonte moom sallallahu alayhi wasallam si ñaari mbir yi benn bi mu ma mu def mu def ko maqaamul ibtila natt ko xool jëmm ji mission bu ma ko bugg a jox ni ndax mun na ko pratiquer ndax mun na koo def mu daal di ko natt lépp lu nga xamante ne coono la mu daal di ko ko teg lépp lu nga xamante ne ay tiis la ay njaqar la mu daal ko ko teg mu judd amul pap mu am ñeent at amul yaay juróom benn at amul maam nekk noonu képp ku nga xamante ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu nekkee sa wet amaanaa di nga ko dimbale dara si àddunam yàlla daal di ko xañ jëmm yooyu mu nekk noonu yàlla xañ ko may ko ay noon yu nga xamante ne dañoo soxor lool waaye mu boole xiif ak mar ak ndóol ngir yent moo sallallahu alayhi wasallam la woon si waxu di nit ngir amuñ woon dara na doon toog ay fan duñ taal dara si biir këram loolu yépp yàlla mu ngi koy natt jëmm ji ma bugg a def markazu dunya wal axir ndax mission bu ma koy jox dina ko mën a motal loolu yépp mu daal di ko muñ lépp mu daal tegu ci kaw waaye mu daal di ko tegoo ba tax na da doon julli xaaji guddi di julli di julli di julli di taxaw taxawaayu yàgg lool ba benn tànkam bi daal di néewi mu coos ko de degaat beneen tànk bi ba soxnam di ko ne ndax yow la yàlla wax ne laqat yàlla ndax yow yàlla yow la wax ne li yaqfira laka allahu ma taqaddama min kaw wa ma taaxar ndax di yow la yàlla wax na jéggal na la lépp lu nga xamante ne bakkaar la lu nga defoon ak luy ñëw te yow doo def bakkaar sax mu ne ko afala akuna ab shakura ndax du nekk jaam buy sant borom moom loolu di sama ngóora mbaaxu yàlla la moo tax suñu imaam muhammadul amin ñu ngi koy nuyu bu baax a baax day faral di wax ne ne góor yàlla amut ku yàlla dimbale moo am góor yàlla amut te wax na dégg ku yàlla dimbale moo am ngir yow góor yàlla am na mbir yu nga def egg si yàlla am na ku ko def ay junney junney at gën laa am coono te eggul si martaba yooyu kon ndimbal yàlla la ba tax na Muhammad fàttewul loolu te xam na ko ba saa su nekk muy muñ yooyu yàlla daal di ko jox maqaamal ahmad <coughs> yàlla jox joxaat ko maqaamal mahmud buñ demee yowmal qiyaama te loolu yépp mu ngi jógo si baatu xamdu kon ndekete woo sant yàlla mooy lépp lépp lu jaam def si àdduna lu sant yàlla rek defoo ko ba tax ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo nekk jëmm ji nga xamante ne moo gën ci jaam yi nga xamante ne ñu ngi sant seeni borom yàlla daal di ko jox garaat yooyu ahmed fi samaa'i wa mahmudan fil arsi wa muhammadin fil ard boo demee ci kaw asamaan yi ñu ngi koy wooyee ahmed bax da ba tax na Seydina Isa ba mu ko wooyee dala yaati min baadi ismi Ahmad mu daal di ko jox waaye ne boo demee ba si mala il ala génn si juróom-ñaar la asamaan dem si pays yàlla yi loolu maqaamal mahmud lay wax moo tax ñu ne fa rabbul arsi mahmud muhammad sallallahu alayhi wa sallam maqaama boobu lay jël bu demee si garaat yooyu waaye si kaw suuf kan lañ ko wooyee muy muhammad bun abdullah kon jëmm jooju kenn génn koo sant yàlla si àdduna ñu ngi ñaan yàlla say géeju xéewal say géeju banneex say géeju barke say géeju teraanga bu mu deñ di sottee ci kaw jëmm muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir wallahi doomu aadama bu demee ba nekk garmi ci mbindeefu yàlla yi muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax nit génn malayka sànkutuma leneen lu dul malaayka malaayka yi du ñu mooy yàlla tarfata ay nen laa yasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaroon waaye nit dem na ba gën leen kan moo tax muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon jëmm jooju ku mu doon muy nit nit kooku lu am njëriñ la si yàlla waaye lu am importance la si yàlla ba tax na yàlla daal di ko dénk mission bu nga xamante ne jox na kente moom sallallahu alayhi wa kon ñu ñaan yàlla yàlla di wanagal ay terangam ci saxaaba mi yi abi ak omar ak ousmane ak ali ak bépp yi sahaaba waaye ak bépp yi góor yàlla ñi nga xamante ne toppoon nañ yoonu saxaaba yooyu le ba keroog ñuy fekk borom bi subhanahu wa di nuyu mbooloo ñu fi teew yëpp kenn ku si nekk turam ak jëmmam di leen masawu coono si toogaay bu yàgg bi waaye di leen dalal di leen tatagal di saafoante gi yéen di leen ndokkeel si fan yi tedd yi ñuy nekk nii mooy fanub yonent bi sallallahu alayhi wa yi nga xamante ne dañ ko koo jagleel waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 365 jours yëpp moo ko moom ngir mooy borom waaye nag ngir système doomu aadama ñu jël bés bi nga xamante ne moom la judd wara si weer bi nga xamante ne loolu la leerale àdduna bi ñu daal di jël fan yooyu di ko màggal di ko fàttali jaam yi kon ñu ngi nii kenn ku si nekk waaye di jiital si néew bi suñu sëriñ suñu imaam Mouhamadul Amin di ko jaajëfal bu baax a baax ngir am na ay gan waaye mu bàyyi ñëw toog di déglu suñu conférence ngir mun ñu soññ waaye mun ñu fital ngir amaana bu fi nekkee dinañ mën a am courage mun a yebbi yenn yi nga xamante ne amaana mënuñ ko woon yebbi sax di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla gën a taxaw may ko kattan waaye barkal ay njaboot yi di ñuy suñu xalif si Abdul Qadir Diallo di ko ñaan yàlla yal na ko yàlla yàggal si xilaafa bi yàlla yàlla yokk yàlla na yàlla na ko yàlla yokk kattan yokk ko barke waaye gën koo dëgëral lu mu sumb si lislaam bi yàlla na ko yàlla may kattan bu koy mottali di nuyu usral xamaadiya bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw jarbaat ñëpp ñu ngi nuyu bàyyi kenn di leen masawu coono di leen baalu ak waaye di nuyu waa waa saañ yi dañ leen di beral nuyu ak sant ak ngir mande ngir ñun dañoo defal dañ leen defalul lu nga xamante ne mën nañ bàyyi seen yitte yëpp ba lépp lu nga xamante ne woo nañ leen si rek ñu bàyyi seen yitte yëpp daal di ko def daal di ko teewoo kon ñu leen di jaajëfal yeneen a ngi sàmm kóllëre bi nga xamante ne maam bi da ko defoon ak seeni maam waaye kóllëre bu nga xamante ne dafa kon diggante suñuy waayjur ak seeni waayjur kóllëre boobu moo des ba léegi te yéen koy sàmm bàyyi leen si benn mosu leen arrière benn tarfatal ay leen ñaanal yàlla yal na yàlla yokk xéewal ak teraanga guddi fan insha allahu taala ak teraanga yu bëree bëri bi nga xamante ne lépp ngeen bëgg si dëkk bi ngeen mun koo def di nuyu dëkk yi nga xamante ne ñoo wër saañ bàyyi kenn kenn ku si nekk ñu ngi lay jaajëfal di leen dalal bu baax a baax. di profité rek wala di gaawal ngir asamaan bi neexut di bëgg a waxtaan ak yéen si doomu aadama bi nga xamante ne yàlla moom la def muy sangi mbindeef ngir wër nañ tem ba sonn ngir bëgg koo am mënuñ koo am ngir yëngu-yëngu jamono dañoo bëgg a def suñuy dar suñuy joxe si tante bi gàmm bu nekk def ko conférence wala tuddee ko cérémonie dañ koo def ay xalaqaatu durus may ay leçon yi nga xamante ne dañ koy jox leçon bu nekk ñu utal ko tem suñu première at buñ ko xoolee dañ doon waxtaanee suñuy maam ba ñu tuddee at tasawuf madrasatul xuluqul muhammadi ñaareelu at bi ñu daal di def beneen tem tuddee ko sunan ilahiya munuñ ko woon motal daaw lañ ko motal ren nag incha allah ñu ngi bëgg a jël te mu ñu wax rihlatul insaan min al bidaaya ila an nihaaya rihlatun ma al insaan min al bidaaya ila an nihaaya mooy parcours humain di début et la fin mooy doomu aadama yàlla mission bu la jox si azal ba mu la ko yankalee si kaw suuf ba ngay dem dajeg yàlla mission boobu mooy lan siiw moo tax borom xam-xam dañuy faral di wax ne yàlla mu ngi tàmbalee mbindam si laa ilaha illa allah laqad laqad bada allahu alxalqa bi xaqiqatin wahida hiya laa ilaha wa xatama bihi manhajahu ala al bi muhammadin rasulullah mu ne yàlla mu ngi tàmbalee si mbindam yi si dëggantaan si mbir bu ñu tuddee laa ilaha mooy kenn amul ku dul moom yàlla waaye système boobu mu koy tëjee ci kaw suuf di muhammadun rasulullah kenn nekkul ndaw yàlla ku dul yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te diggante la ilaha illa allah ak muhammadun rasulullah lenn rek ma fa mën a am fala budda an ya isa al insana jamia foog doomu aadama yëpp daal di dund te doomu aadama yooyu bu ñu dundee nar a wéyal mission yàlla bi kan moo nekk seen général mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <coughs> moo tax Muhammad boobu dundam dafa am importance surtout ma bi nga xamante ne moom la taaralee àdduna bi waaye moom la leeralee monde bi moo tax benn bàyyiti xam mooy Abbas bun Abdul Muttalib dafa mos a toog ak yonent Muhammad sallallahu alayhi waxtaan ba ñuy waxtaan mu ne yow Muhammad sallallahu alayhi yaa ngi bàyyi xel ba nga nekkee liir liir bu tooy xepp nekk si si say sër yi nga xamante ne dañ la ko muure nga nekk sa loxo yaay da ngaa jékki ma gis la mel ni kuy waxtaan ak weer bi nga xool weer mel ni kuy waxtaan ak moom nga jëkk jékki jooy ba si kanam nga bàyyi jooy yi def ay minute moo mu ne yàlla defar na loolu Seydina Isa alayhi salaam niki man mu ne man ba ma juddee yàlla dafa bind ñaari doj si kaw juróom-ñaaru la asamaan doj yooyu mu ngi fay def ay malaayka yi nga xamante ne kenn xamul nu ñu toll laa yaalamu junuuda rabbika illaa huwa kenn xamul malaayka yooyu nu ñu toll waaye ñoom ñëpp ñu ngi sabbal yàlla di ko bàkk di ko kañ mu ne tiyaaba yooyule yàlla mu koy denc kan la ko dencal <coughs> mooy ñu nga xamante ne dañ maa tudd seeni wét seen yaram daal di daw ñu daal di julli si mam mu ne yool boobu si ñoon lañ koy jox moo tax yenente boobu juddam lu am important si kaw àdduna bi moo tax mënuñ ko sey ba tax la yàlla ba mu ko indalee si kaw suuf dafa def si moom ay qualité yi nga xamante ne bu ñu bëggee ñu am jàmm wala ñu bëggee suñ dund neex bu ñu bëggee ñu mën a doxal àdduna bi daal di def organise organise ci kaw suuf bi foog ñu topp uslubam ci ay jikkoom ci ay mbiram ci ay liggéeyam nu mu doon doxee nu mu doon xoole nu mu doon waxee nu mu doon jëflante lépp lu nga xamante ne da ko doon def ci kaw mm, euh, moom ak saxaaba yi loolu dañ ci war a attirer ay leçons ay ibar ak ay xikam yi nga xamante ne mun nañ ko tëralee si kaw suuf daal di wéyal ba coono du am si kaw suuf moo tax bu ñu xoolee tubaab yi bu ñu buggee avancé lu ñuy wax naxdal al naxdatul Europa renaissance européen bu ñu ko bëggee am tubaab yi dofuñ de dañoo envoyé ay borom xam-xam réewu arab yi ni ku mel ni Andalus mi nga xamante ne mu ngi nekkoon seeni pouvoir yëpp fa ay ay savant ñu dem jàng foofu jël si xam-xamul Qur'an. daal di jël lépp lu nga xamante ne lu baax la ci alquranul karim wala lu baax la si waxu yéen sallallahu alayhi wala saxaaba yi nga xamante ne ñoom ñoo jamonante ak yonent moom sallallahu alayhi wasallam ñu daal di jël si xam-xam yooyu daal di fexe defal lu ñuy wax renaissance européen Europe moo tax mu développé nii. bu nga demee université yu mag yi téere mag yi lañ fay jàng ni ku mel ni Imamul Ghazali ni ku mel ni Ibn Rusdi boo demee si université yu mag yi Europe yi ni ku mel ni Oxford université yooyu loolu lañ fay jàng. moo tax Europe yu Amérique Europe daal di développé daal di teg loxoom ci kaw suuf loolu fan lañ ko jëlee ci lislaam lañ ko jëlee waaye ñun ñooñu lislaam ñu ngi xulo di ngaayo kii de bu waxee ne kii xamul dara kii de masala bi fii la toll ba léegi ñun foofu lañ toll waaye baax na ngir suñu mission ñaari ñett yi la mooy lan mooy jaamu yàlla tasaare xam-xam sellal baaxal loolu moo nekk mission moo tax yan yent moo sallallaahu alayhi maa ngi fàttale ko Idris Seydina Idris waxtaan mu doon waxtaan si bëccëg bi si jumaa ji dafa ñetti lu am solo mu ne alquran mu ngi tëjee ñetti mbir yi bu si njëkk ba mooy alquran mu ngi ko njëkk a si sura bu ñu iqra bismi rabbika alladi mooy baatum njàng mooy xam-xam bi nga xamante ne àdduna mi bu demee ba développé àdduna mi bu demee ba mel lu mu mel xam-xam moo ko def xam-xam domaine bu mu munta am nag ñaareel bi mu ne ñaareelu saar bi nga xamante ne mu ngi wàcc avant dernière aay mooy suuratu idaa jaa nasrullahi wal fat mooy lan mooy alfath ubbiku mooy mayib yàlla mën nañ ko tuddee koom-koom aha mun nañ ko tuddee loolu yëpp ñetteelu aaya bi fu muy waxee al yawma akmaltu lakum diinakum baat boobu ñu koy baatu diine mooy jaamub yàlla alquran aaya bi mu tëjee mooy wattaqu yawman turja'una fihi ila la mooy bés bu ñuy dellu suñuy borom xoolal ñeenti aaya yooyu wala ñeenti saar yooyu ñeenti aaya yooyu iqra al fathu ad diin rujuu ila allah mawla ñett ñeenti yooyu doomu aadama mënu ciy génn ci dundam déedéet ñeenti yooyu doomu aadama bépp buy dund ci kaw suuf mënoo génn ci ñeenti yooyu sa waa on da ngaa gëm yàlla topp ko di pratiquer yàlla lu mu la diggal wala da ngaa weddi yàlla te xam ko am na ñoo xamante ne dañoo xam yàlla waaye di ko weddi am na ñoo xamante dañoo xamul yàlla sax amaana lu ñuy def mbirub yàlla la waaye dañ koo réeral loolu la ñu wax jaahil moo koo xamante ne xamul tus si lu muy def mais am na ñoo xamante ne xam nañ lànk ne yow yàlla lum ñuy digal duñ ko def waaye nag yàlla ñuy boole ñi nga xamante ne xam nañ te di jéem a def yàlla lum ñuy dindal lum ñuy digal ba tax na moom yent moom sallallahu alayhi wa <coughs> buñ ko xoolee dundam li mu dund màkka balaa mu nekk yenant xoolal qualité yi mu wone foofu mbaax ba jub ba def lu baax jokk mbokk ah lépp lu nga xamante ne liggéey la si lu baax yent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam mu ngi koy def ba tax na ko feeñoo feeñ boo xamante ne dafa yéeme ngir malayka ak lu wala ñuy tudde rawxaan wala jinne nit nga xamante ne miinoo di leen gis sa njëlbeenu gis buñ la wonee seen sawra rek mun nga am problème seen visage dëgg buñ la ko wonee rek mun nga am problème jibril nag ba muy wàcc si kaw moom sallallahu alayhi si xaarul xira dafa wàcc ci sawra bi nga xamante ne yeneen itam mënu ko woon dékku ci jamono jooju la affaire bi daal di ko sonal lool mu daal di ko njat xooj ko ne jàngal sa borom. waxal Malick yaa ah, xayma ba dox ba ba ba si bosam kenn mënu ko wax waaye xaalimul umma wala xaalimul xawm mooy taajudin amaana suñ ko temps bi mu dugg ci ay xasidaam yi mooy cheikhu jili mooy xutbul awliya kooku moo gën a kàttakayni ci yàlla kooku dafa dox ci yàlla ba ba jeex kon ñoo ñoo bugg yàlla ndax ñun bugg nañ yàlla déedéet parce que ñun doxaguñu ci yàlla kon lu waaye bëgg rek te doxoo ci yàlla ko ko waaye nag bëgg ko dox yàlla rek ko jago ko ko dox rek te bu yàlla rek tàcc la tàcc nga comme nag benn histoire ñu koy waxee benn day waaj bu am benn jigéen ba dox ci rek pour que moo ñun moo ñunu lay daal lu mu amurru ala diyaari Galileya ah uqaddu gal bigardiya wa gadi bidiyaari eh, ah madaxalni tukki xasida yi képp ku jàng arab rek xam nga waa jóge dafa bëggoon benn jigéen waaye mënu ko gis mu wax moom ñu dox ci mbedd bi di fóon ay miir di raay ay miir gars yi na ko yow tax nga de mu ne leen li may dox di raay ay miir di fóon lu tuf lu tafalu miir de waaye ki ma bugg te la ci gannaaw miir bi mënu ma ko gis mënu ma ko wax ak moom moo tax mooy fóon miir bi dem waaw li li soo ko jàngale mooy lan mooy bugg boo dof bu muy romb bu ñu romb bay ñëw ci pay na ko ci jàkka ji yow foo ba dina mën a jàpp ngay romb bu jàkka ñuy julli julli woo mën a gars yi yéen julli julliwu leen julliwu leen rek mbir moom li may romb fii li ma intéressé mooy li ma bugg ba tax na xaw ma fi am na jàkka ba xam na ñu fi julli yéen ñuy julli nag bàyyi na xel ku waroon ngeen jiwu leen ki ngeen di jullit intéressé kon loolu jàngale la loo xamante ne ñëpp ko war a xel dafa ne gars yi yéen julliwu ki ngeen di jullit su la ma bàyyi xel ba may gis kon mbokk yi ku yàlla doy doo doog kon loolu histoire la waaye nag jàngal moo ci nekk kon yàlla soo te doxoo ci rek kon bu waxoo ko kon ñu suñu bëggeel dafa des kon ndax mën nañu bëgg yàlla muy benn baat ñaareel mooy lan topp fàttali wu ni da ngeen ma topp ndax ñu ngi topp Seydina Muhammad wala sax ndax mën nañ koo topp wala sax jéem nañ ko sopp naa nabi sopp naa nabi nabi ci laa mel ba tax na ko dox nag Cheikh ba jëriñee na bëriwul dafa ne balaa ngay bëgg jafe na de am suluk sumul wusul sumul wuxuuf sumul rujuu min indihi min xayri mufaaraqa ila xadrati aqaalihi dafa ne ak suluk sumul wusul summa wuquuf summa rujuu min indihi min xayri mufaaraqa ila xadrati afaalihi ma prim yéen gars yi borom parti ni ah hmm? amulaay ba tax ma ne ñii dugg bëri nañu ñii ñëw dugg bëri nañu ba ñii dugg bëriwul trop ko sàkkaam وطلب الحق منفرد والسالكون طريق الحق أفراد وما أن طلب الحق واحد noonu la ko waxee kon mbokk yi ñu ñoo bëgg ñu bëgg ñu de ñu ñoo topp waaye ñun topp ñu seen am sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu kon ñaareel mooy lan fàttali wu muy topp kon ndax topp na seen am Muhammad ñu suñ ko toppoon lu bon lu bon lu yàqu lu yàqu ñu si yàlla ne ah fama ataakum rasulu faqunuhu fama nahaakum anhu fan taxu jëmu ji lu mu leen wax soo ba ngoon topp leen ko lu doon lu doon tere rek bàyyi leen ndax ñu ngi topp ay waxam ndax ñu ngi ay teram suñ toppoon ndigalam bàyyi teram kon àdduna mucc li tax mucc ñu toppuñu ko te ndigalam bàyyi ñu ay teram yàlla su ne fala wa rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhaakkimuu fiimaa shajara baynahum àdduna bi dox mukk budul dañoo may noppi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àdduna du baax mukk budul ñuy xoolee sa bët defar sa tànk jàppale sa waaye ku waxul te sa wax déglu na du dox kon ku ko doxee kon na nga dugg seen amoon nga kon dafa ne fala wala ni laa yu'minu du ñu gëm ndax gëm nañu su ñu gëmoon ñu kon li am du am. du yàqu du yàqu waaye ñun demuñu du sama wax de du sama wax du sama wax de yàlla ku ne eh, étudier woo ko tax todu ku topp Seydina Muhammad danga gindeeku lu tax ñun gindeeku gindeeku ñu su ko waral ñu ko téye woo suñ topp Seydina Muhammad taxtadu ngeen génnee ko kon ku gëm yàlla moo lay orienté ku yàlla lay orienté foo foo juumee doo jàdd wala suñu njuumte bi suñu ñu ñuy jàdd ni dañoo gëmul wala dafa ne amoon ñu yumin yahdi xalba lu rek yàlla ko amoon yumin yahdi par ku gëm rek yàlla moo lay orienté yàlla bu ñu orienté nag mbokk yoo jum kon ñun jéemuñu toppuñu jéemuñu toppuñu kon tabarakallahu nañu góorgóorlu jéem a gëm amaana ñu mën a bokk ci ñu gëm góorgóorlu jéem a bugg amaana ñu bokk ci ñu ko bugg fa tabarakallahu kon suñu demoon bugg déglu lu yàlla waxoon ci lu yàlla wax ci Seydina Muhammad kon lu jàng yàlla su ne e, waxtu bi hablillahi ah jamii'an waxtu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu leneen mooy ci buumu yàlla bi te bu leen xaajaloo ndax mooy nañ ci moyeñu wonde haajaro aduna bi ñettange hañande kii kiinan man siara kiina man salafisla man sunnila man suufila man xawarijila ndax yàlla moo ñu moo ñu ko sant su kiinan sant kiinan sunnila mu ngi xaañ suufi bi ki nga salafina muy xaañ sunni bi ki nga chia la muy xaañ kale ba si muy daw ba si réew mi fii si jàmm naa ngi xaañ murid murid baa ngi xaañ xaadim bi ku ñëw ndax boo dañoo booloo ndax mooy ne bu yàlla bi yàlla moo ñu ko wax waxtu ba xam ne daal yi jami'an wala tafarraqu na nga nekk benn mooy ci benn yoon bi mooy yoon yàlla bi bu nga xaajaloo nga xaajaloo kon mbokk yi dañuy caaxaan rek dañuy caaxaan waaye wax bi yaa soxla ko kon na ñuy booloo na ñuy booloo yàlla benn tur nga tànn jox ñu al muslim jullit waxu ko dafa ne yax bi baa xawal na benn ji wa ismail rabbana taxaw mel ni nga naan nga alim ah rabbana ظلمنا أنفسنا وما سكنا وإنك أنت الرحيم واجعلنا مسلمين aaya bi ca bopp ba ne ñu yàq bi maanaam soxal nañ béy ba Ismaïl rabbana yàlla nangul ñu waj'alna muslimin laaka murjiat murjiatna ummatan muslimatan laak ñu déggal mu jiitaloon aaya bi dafa ne yàlla li nga xam ne mu ngi kenn rek kaar nañu ak doom bi Ismaïl dafa yàlla nangul ñu nangul ñu dama def ñu suufi wala ñaari sunni wala ñaari salafi gari wala wa tan na muslimayni loolu si suratul وجاهدوا بحق جهاده واتبعكم وما جعل في دين خارج من أهلكم إبراهيم هو أصم هو أصمرهم سنين من قبل لا تكون هو أصم على سفيون ولا سلفي ولا سني ولا ولا ولا تكون وأصمعكم المسلمين من قبل kon mbokk yi tarixa baax na waaye nag taxul ñuy xaañante taxul ñuy xaañante di boddekuwante di xasante di ngañante fu ñëm xaadim tijaan du ma ne du murit ngir Seexul Xaadim la xaadim waaye murit mooy naan tijaan bi diinam du mot bu du mën murit xaadim diinam du mot bu du mën murit kuy wooyee kuy eh, wooyee murit du nekk murit mu ba mu nekk murit kuy kuy wooyee kuy wooyee murit maanaam diine bi mot mu ba mu nekk murit lu mu wax kullu wirdin yu dal murida la xalati la toran la ci ku ko wax suñ tuuba lu waay téere lu la mën a yóbbu ci yàlla rek doo mën a doo xam kooku mën a jëlee nag kooku mën a jëlee kon ci naa moom mel ne al yakunu al murida al muridu al murida hatta ya'ti al qur'an kulla ma yurid ah wa ya'rifa minhu an nuqsan an al mazidi waxtarna bi kalamil mawla an kalamil adib loolu sàngi wax doomu aadama luy murit koo xamante ne na si yàlla tàkk ndax xaalis bu ndax xaalis bu jeex si yàlla ndax bu jeex si yàlla mooy bu jeex si yàlla tàkk suñu wax dafa ne lu waay rek murit la tijaan nga murit la xaalis murit la lu kii rek murit la murit tuur la rek. foog ñu ko jël waaye murid dëgg-dëgg mooy kan mooy kii mooy si buur yàlla bi mooy murid soo xajoo la wax wax naa ko léegi waaye nag kon muridu muridan xataa ñu def alquran ku la maa yuri nit ku doo mën a baax mu bu dana mooy si alquran jàpp ko def ko sa lépp bu mën a nekk doomu alam bu kaamil waaye def ko ko loolu kon fa tabarakallahu kooku moo tax nii eh, jàmm Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon su ko toppoon yàlla mu wax wa qul ibaadi yaqul kee ahsan wax sama jaan yi dañuy wax lu baax wax ñu koy wax ndax ñu wax lu baax wax ñu lu baax de wax ñu lu waxante lu ñaaw lañ fi nekk inna seytaana yanzahu baynakum bàyyi la wax lu bon ku ne koy waxoon mooy kan seytaane si seytaane seen noonu la kon suñu toppoon jëmu dëgële kon topp ndigalam bàyyi teram ñu mucc àdduna mucc àllaaxira waaye mbokk yi ñu ngi tànt ñu ngi wax ci rajo yi télé waaye topp des na télé bi et na kon ñu góorgóorlu fa tabarakallahu di jéem ci mbuggeelu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jéem a war ci moom ay jikkoom jéem a topp ndigalam bàyyi teram ngir ñu mucc àdduna mucc àllaaxira loolu yàlla sant kon fa tabarakallahu kooku nag e ku dem ba jax si moom lu bëri li nga xamante ne àdduna mu ngi koy jànkoonte fu doon ni lu am ngir soo waxaan suñu waxante lu baax fas kóllëre bañ ko fecc caaxaan bi ñu bàyyi ko góorgóor si njub kon ndax lu bon am du am yàlla dafa ne xamsun bi xamsin juróomi du am te juróomi am vraiment nafada qawmun al ahda ila suda alayhim arruhum ay xeet bu ñuy gañ di fàtti coloré mu bu maa yebal si ñoom ay noon kon ñii yàlla sa àdduna ko toll ni rayante si boo defalante lu ko waral perte kóllëre Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam terewoon nañu perte kóllëre ndax perte ñu ko ñu koy perte kay suba ngoon kóllëre amatul perte nañu ko mu jeex tàkk ñaare mooy lan mu ne wa maa hakamu bi ghayri maa anzala Allaahu ilaa fasaa fihim al-fasl du ñu téye di àttal ci naan bu alxuraan bu dul yàlla te seen kaw ñàkk seen yaa ngi joxe ay doom de nañ ñaan mu ne ay doom waaye yàlla ne ñoom ci dafa ne du ñu teree di àttal ci naan bu alxuraan bu yàlla ko ci kaw suñu kaw ay ñàkk kon wax taal yi ñu àttal ci alxuraan taw rek baaxu kon eh, ñaan ñu ñaan ñaan ñu ñaan donc man ay doom ñu naan ñu ñàkk lu jeex ñàkk baaxoo de yàlla ñàkk lu koy lu koy gën a biise loolu ko waral dañoo tënku seen bu alquran man di moo ko wax wa ma xakamu bi xayri ma anzalallaahu ila fasa fihim al faqr adduna bi ñu tënkoo seen bu alquran yàlla na sotti ñàkk seen kaw kon ñaan leen bi ñàkk jeex bi yàlla na jeex mu ne wala zahara alfahisa ila fasadihim al mawta lu bon lu bon lu bëri mu bul yàlla wàcc ay dee kon léegi bëri lu ko waral suñuy mbon ma suñuy mbon la ko waral kon suñu bëggee dee wàññeeku rek nañ jéem a baax wala baax baax lu sax bu ko defee dee wàññeeku li moo ko waxee wala zahara fi alfahisa ila fasadihim al moom kat lu bon lu bëri mu lu dee bëri kon suñu bëggee dee wàññeeku nañ fexe def lu baax eh, tabarakallaahu kon yàlla nee na zahara fasadu fil bahri wal barri bimaa kasabat aydin naas liyudiqahum ba'da maa amilu la'allahum yarji'uun nee na suuf si fas na tëb ak ngoon géej baa ngi fay tëb ak ngoon lu ko waral doomu aadama yi ñoo ko fàggul seen bopp de ñoo ko fàggul suñu bopp bu ñuy daal ñoo ko rendi de moo tax mu naat suñu loxo bu ñu naat ñoo ñoo ko rendi suñu ko rendoon mu naat suñu loxo kon pour mu ñu mën a mucc ci naat ñu góorgóorlu bañ a rendi ñu ko rendi rek ñu naat sa loxo yàlla ko damay wax dafa fasadu aaya bi jeex ma ziyaara kon suñu bëggee suñu wax bu mu nàcc rek bu ñu rendi waaye bu rendi rek wala ko nag kon fa tabarakallahu kon lii mooy li nga xamante ne yàlla digal nañu ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon waxtu bi jeex na ga waaye si kay ci la ko tax yu kenn ku si ne si turam santam góor ak jigéen mag ak ndaw gannaaw bum sante yàlla sunu boroom julli ci seydina muhammad muy xayru xalqillah mu ne di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin ñu dellu waxaat ne alhamdulilahi rabbil alamin mu ne fi yàlla may na ñu fekke woon ko daaw ren ñu fekkee waat ko mu ne du suñ dëgër bopp de du suñ man-man ñi ko fekkee wulit du seen nekk yàppaaral mukk waxtu gu jot la kon ñun ñu xam ne yàlla may nañu ñu fekkee ko daaw fekkee waat ko ren kon xalifa bi ne ñu bokk sant yàlla na alhamdulilahi rabbil alamin ne gannaaw loolu mu ne mu ngi nuyu saañ bambara mu ngi nuyu waa saañ góor ak jigéen mag ak ndaw nuyoo boo xam ne am na tàmbali waaye amul jeex tak mukk mën a ndaxte saañ mooy seen lépp ñoom moog imaam ak seeni rakk munuñ dara yéen a nekkoon ci waar bi nekkoon ci waar bi guddi ak bëccëg suba ak ngoon mu taw mu xiin mu xiin Eh, mu ngelaw mu ngelaw mu poussière yéen a nekk ci waar wi ñoom ñu ngi ci biir néeg yi di naan seen ndox yu sedd yéen yéen a ngi si ileer yi yéen a ngi si rato yi eh, mu ne kon waa Sañ Bambara ne jaa ngeen jëf te bu leen wàccagum eh, mu ne jeunesse su Sañ Bambara ñii góor di jigéen sant nañ gërëm nañ suñ amoon leneen. suñ amoon leneen. li nekk gannaaw jaajëf. li nekk ci ginnaaw jaajëf. kon nañ ko doon wax waa Sañ Bambara. amuñ keneen. amuñ keneen. ku dul ñoom. ñoom ñooy seeni lépp. kon yàlla na yàlla jàppale. kon yàlla na yàlla jàppale. yàlla na yàlla dimbali. yëg ngeen ñu. yëg ngeen leen. ñoom it yëg nañ leen. wallaahi ñoom it yëg nañ leen. borom dëkk bi. di nuyu borom dëkk Saañ Bambara. Eh, sooy dugg ci biir néeg. mun a sooy dugg ci néeg. da ngay da ngay jaar ci bunt da ngay jaar ci buntu ba. Eh, borom dëkk. te borom dëkk. Eh, ñu ngi koy sant. mu xalifa bi ne mu ngi koy sant. ak sama secrétaire papa bi. ak secrétaire wayjur bi. Ibrahima Sandiougo Coulibaly. ne Ibrahima Sandiougo Coulibaly. man seen keppaar laa yaroo. mu ne moom seen keppaar la yaroo. kon su ma nuyoo borom dëkk kon su nuyoo borom dëkk bi. nuyu naa Sandiougo nuyu na Sandiougo. nuyu na famille Coulibaly yëpp nuyu na famille Coulibaly bi yëpp. Sanjugu ñu ne kon Sanjugu nuyu bi nuyu gi teg nañ ko sa loxo teg nañ ko sa loxo nga jox ko askan bi yëpp nga jox ko askan bi yëpp képp kuy kulubali képp kuy di borom dëkk ak ay njabootam seen taxawaay seen taxawaay si njaboot gi si dëkk bi si diwaan bi rafet na gis nañ ko yal na yàlla jàppale yal na yàlla dimbali eh, ne mbiru Sanjugu ne eh, Seydina Omar ne Seydina Omar wax na ko wax na ko. mais man léeg mu ne moom léeg sax. da koy jëllali da koy jëllali. parce que nu muy jëflante ak man. mu ne ndax nu muy jëflante ak moom. moom bëggul kenn xam. moom bëggul xam loolu. Mawlana Cheikh Alpha Hamma. moo ko yar moo ko yar. moom Sandiouga Coulibaly lu mu bëgg rek. Eh, su ma ko defalee su ko defalee. mu noppi ci mu noppi ci. kon Kulubali yàlla na la yàlla fay. yàlla na nga yàgg seen kanam yàlla na nga yàgg seen kanam. di ñu woon di woon lumière di leen woon lumière incha allah. si kaamul moom waajur gi la mu ne ndax yow si waajur gi nga woon. aywa gannaaw loolu. mu ne gannaaw loolu. mu ngi nuyu suñu waa këru papa Habibou mu ne mu ngi nuyu waa kër papam Cheikh Habib Diallo. te mu wàcc liggéey yàggul. te mu wàcc liggéey yàggul. te ñu ngi koy jooy noppeeguñu. ñu ngi koy jooy noppeeguñu Cheikh Habib. na Cheikh Habib. Eh, yàlla na yàlla na yàlla saral tëruwaayam. Eh, bàmmeelam leer. bàmmeelam leer. njaboot yi mu fi bàyyi. yàlla na ci yàlla teg loxo. Eh, njaboot ji. na njaboot gi. muy góor muy jigéen muy jigéen. lu ñuy def si ñun. lu ñuy def si ñoom. Omar wax na ko. Seydina Omar wax na ko. Omar Khalil. muy Haroun. muy Haroun. ak ay magam. di vie Momadou ak seen jigéen yi na eh, Cheikh Habib fu mu leen bàyyi ba tey foofu lañu teg seen tànk kon jàllo jaa ngeen jëf yéen ak seen i jigéen yàgg fi lool eh, na gannaaw loolu mu ne mu ngi nuyu kilifay diine senegal gi yëpp xalif généraux yi yëpp eh, ku lim doo dajal soo ne xalif généraux soo ne xalif généraux. ñëpp dugg nañ ci ñëpp dugg nañ muy waa kër maam borom Touba. muy waa kër maam borom Touba. muy waa kër maam Khalifa Niass. muy waa kër Khalifa maam Khalifa Niass. muy waa kër maam Baye muy waa kër maam Baye Niass. muy waa kër maam Ceneba. muy waa kër maam Ceneba. muy waa kër maam Kunta. muy waa kër Bu Kunta. Ndiassane Ndiassane. Layen Yoff Layen Yoff. Tivaouane Tivaouane. ñëpp ñëpp. fàttewul kenn ku ñu ku ñu waxul tamit. ñu ngi lay tudd si biir xolam ñu ngi si biir xolam. seen taxawaay rafet na seen taxawaay rafet na. weer bi ba mu taxawee ba léegi weer bi mu taxawee ba léegi. sëriñ si sëriñ si. E, daluñ daluñ taluñ taluñ. saa su ne saa su nekk. ñu ngi si rajo yi ñu ngi si rajo yi. ñu ngi si ñu ngi si télé yi. ñu ngi rey ay gàtt ñu ngi rey ay gàtt. di màggal Seydina Mohamed di màggal Seydina Mohamed. ah kooku moo tax suñ maam yi màgg. mu ne kooku moo tax suñ maam yi màgg. si Alpha sàmba si Alpha Samba. si Alpha Hamma. si kii di maam. kii di maam. kii di wayjur bi di wayjur bi. Eh, di xaadimu rasul di xaadimu rasul. seexul seexul islam. di maam xalifa di kan lañ am. kan lañu am. gannaaw yàlla gannaaw yàlla. Seydina la Seydina maam bu Kunta. maam bu eh, muy Seydina Limaamu. muy Ceneba muy Tivaouane kan la ñu am yàlla Seydina Muhammad balaa nga yegg si yàlla foog nga jaar si yonent yàlla Muhammad kon ki tàgg nga xew su xewalee dangay xew Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bésam su jotee da nga koy defal lu rëy. lu rëy. munoo koo defal lu xam ne munoo koo defal lu xam ne sax. nit nit defalu ko. ko ko. mais yow da nguufaan. da nguufaan. sa lépp sa lépp. jox ko Seydina Mohamed jox ko wallaahi at bi balaa muy dellu si at yàlla jox la yàlla jox la. lu la lu la lu la jomb. lii mooy secret bi. ne lii mooy secret bi. amul secret. déedéet eh, ñàkk. ñàkk. tedd ñuqi ñuqi tedd waaye mel ni mel ni hercule rek bu ñëw rek ngelaw bu ñëw rek eh, wëlbati beneen côté Seydina Mohamed na Seydina Mohamed sallallahu war a xewal kooku tax kooku tax yàlla bind la kon nag soo ko defee. kon soo ko defalee. yàlla defal la yàlla defal la. lu la jomb lu la jomb. kon nag sëriñ si. kon sëriñ si. sant nañ sant nañ. gërëm nañ gërëm nañ. seen ñaan seen ñaan. sikk amul ne. sikk amul ne. moo téye Sénégal moo téye amul ne. sikk amul ne. moo téye alam moo téye alam bi. kon suñu nuyoo ba pare. suñu nuyoo ba pare. Eh, ñu nuyoo taalibe yi. ñu nuyu taalibe yi. sëriñ sëriñ amul leneen amul leneen lu dul taalibeem taalibe amul leneen lu du sëriñam ñoom nag duñu ay sëriñ mu ne moom taalibe la rek mu ne ndax moom eh, yaa fi sës yaa fi sës mooy taxa mooy taxafalu wolof fi eh, wolof fi setul aywa ki fi nekkoon. ki fi nekkoon. ba mu fi bawoo. bàyyi ko. ñi ko toppoon. ñi di turandoo Omar Khalil. di turandoo Omar Khalil. di sama mag. di magam. di sama sëriñ. di sëriñam. di tëdd suufu Yaamu Sokoro. di tëdd suufu yal na ko yàlla yërëm. yal na ko yàlla yërëm. suuf yal na sedd guy ci moom. Eh, eh, gannaaw kooku. gannaaw kooku. moom ci moom la topp. ñooñu suñ fi nekkoon ñooñu suñ fi nekkoon. Abdul Xaadir kenn du ko tudd fii kon ñoom it. Eh, yàlla na yàlla eh, seen tëruwaay. yàlla na seen tëruwaay. yàlla na sedd guy. yàlla na yàlla xare ajana. yàlla na yàlla xare ajana. Eh, mujj gu rafet. mujj gu rafet. seen njaboot seen njaboot. yàlla na si yàlla teg loxoom. bawoo mooy ñi fi bayoo samay mag ay magam samay sëriñ ay sëriñam ay wasilaam ay xalifaam eh, seen njaboot seen njaboot yàlla na ci a teg loxo ñoom seen àllaxira neex eh, yàlla dëkkal leen ci àjjana yàlla dëkkal leen ci àjjana firdawsi si mën na ko yàlla ko yàlla na ko yàlla def ay waa gannaaw loolu na gannaaw loolu mu ngi nuyu waa presse bi képp ku jàllale. képp ku jàllale. presse la presse la. sëriñ si sëriñ si. mun nga toll ajak jak mun nga toll ajak jak loo wax loo wax. si yàlla. si yàlla si yonent bi si yonent bi. yaa ngi koy jàllale presse yaa ngi koy jàllale. kon presse yi. caméraman yi caméraman yi. journaliste yi journaliste yi. Eh, ak nit fu mu fu ñu bawoo. ak fu mu munti bayoo. presse bu ñu bawoo. presse bu mu munti bawoo. ñoo xam ñoo xam. parce man ndax moom. presse yi man miinu ma leen. presse miinu leen bu baax. man man kaw kaw laa xaw ma moom xamul presse yu bëri. mënu ma leen tudd mënu leen tudd ñoom yëpp balaa may def njaaxum balaa mu fi def njaaxum daal yaakaar naa daal yaakaar na ne eh, su ma leen su ma leen tuddee noonu su leen tuddee noonu ñëpp dugg nañ ñëpp dugg sant nañ leen eh, gërëm nañ leen gërëm nañ leen aywa gannaaw loolu gannaaw loolu ñu ngi nuyu waa Sénélec di nuyu waa Sénélec di nuyu waa Sénélec seen seen taxawaay eh, ak li ñu taaralee bés bi ak li taaralee bés bi. suba ak léegi suba ak léegi. seen fil yaa ngi dagg rek seen fil yaa ngi dagg rek. suba ak léegi suba ak léegi. seen fil yaa ngi dagg rek seen su ma ooyee seen kilifa yi seen kilifa yi. ñu ne ko. sëriñ bi sëriñ ñu ngi def tout ñu ngi def tout. pour gannaaw yàlla gi gannaaw yàlla ak yonent bi. bésu Seydina Mohamed bi bésu Seydina Mohamed bu mu mën a rafet bu mu mën ñu ngi si taw bii si taw bii. ba ci Sibassor am na lu dagg foofu am na lu dagg foofu. ñu ngi nii ñu ngi taw ñu ngi tawte. pour bésu saañ bi ala daw mi formé kon Seydina Omar eh, Omar Khalil sant nañ Senelec gërëm nañ leen su neexee loolu ci fekk eh, gannaaw loolu gannaaw loolu mu ngi nuyu sànc kanam mu ngi nuyu sànc kanam duñ leen musa fàtte duñ leen musa fàtte ak daayira yëpp ak daayira yëpp nuyu sànc ci kanam eh, président bi président bi ak membre am ak membre yëpp kenn nit kenn nit mënul dara mënul dara kon sant nañ sant nañ gërëm nañ gannaaw loolu Ndeye Sakho. di nuyu Ndeye Sakho. E, ak ay mbootaayam ak mbootaayu jigéenam yi. E, yónnee na yónnee na. sama turandoo e, bàjjen. turandoo bàjjenam. Kamsa Kamsa. ak Fatou bu Dawda ak Fatou bu Dawda. ñoom Umu Umu Diop ñoom Umu bu Modou Traoré bu Modou Traoré. bu bëri indi ko xaalis bu bëri. pour mën ak njaboot gi pour ñu def ko ci gàmm gi. kon Ndeye Sakho kon Ndeye Sakho. yaa ak say mbootaay sant nañ leen gërëm nañ leen. suñu nuyoo tamit it. Mamadou Traoré kooku ñu tudd Mamadou Traoré di nuyu waa Sagne yëpp waaye Mamadou Traoré seen diggante ak Sonacos moo fa nekk kalifa ñu nuyu kilifa Sonacos ci taxawaayam defal ak la muy defal. si si wàllu base ci wàllum base bi. suñu waa këru bàjjen Kamsa. waa këram bàjjenam Kamsa. di waa waa Jaafaraabe. di waa Jaafaraabe. di Momadou Diakhaté. ñoom Momadou Diakhaté. ak ay magam ak ay magam. ak ay jigéenam ak ay jigéenam. sant nañu leen gërëm nañ leen gërëm nañ leen. ak sunu xaritu papa yi. ak seen xaritu wayjur yi. Eh, góor gi dafa ne. góor gi dafa ne. moom utul taalibe moom utul taalibe. ay xarit la uti ay xarit la uti. ak ay jullit ak Sanjugu mun naa dëggal loolu. fu mu taxaw fu mu taxaw. loolu lay wax loolu lay wax. kon nag ñoom Ablaye Ndiaye ñoom Ablaye Ndiaye. ñoom Cheikh Naar Sibassor. ñoom Cheikh Naar Sibassor. waa kër Papa Boubacar Ba. waa kër Papa Boubacar Dia. Eh, eh, eh, ba. Mboro Mboro. ñoom Viya ak ñoom Moussa. ñoom Viya ak Moussa. ak Papa Boubacar Dia. ak Papa Boubacar Dia. ak ay ay rakkam ak ay jigéenam ñoom Daawda eh, ñoom ñëpp eh, sant nañ leen sant nañ leen gërëm nañ leen gërëm nañ leen ñoom Ablaye Ndiaye ñëpp na Cheikh Tidiane Kobar moom nuyoom dañ koy beral Cheikh Tidiane Kobar su tawee mu ngi saañ mu ngi saañ su tàngee mu ngi saañ su seddee mu ngi saañ kon Cheikh Tidiane Kobar taxawaay gi rafet na kilifa gi nekk lew na soo demee nga ne ko ziare nañ ko bu baax yónnentam gis nañ ko gannaaw loolu ñu ngi nuyu force de l'ordre yi. di nuyu force de l'ordre yi. Eh, gendarme yi gendarme yi. Eh, capitaine Fofana. capitaine Fofana. ak adjoint bi Diallo ak adjoint jàlloo ak chef de brigade bu Gandiaye Dia chef de bu Gandiaye Dia. Eh, ak ay éléments yu mu fi yebal ak éléments yu fi yebal. gendarme yi gendarme yi. sant nañ sant nañ. gërëm nañ gërëm nañ. am na ñi xam ne. am na ñoo xam ne. dañoo xaw a sant baax xaw a sant baax. soo gisee ñu toog soo gisee ñu toog. réglé réglé. yéen a tax yéen a tax su nekkutoon yéen léegi ni jaxase fu ne léegi ni jaxase nañ fu ne eh, ñi sant ba ñi sant ba ñoom fu ñu nekk ñoom fu ñu nekk ñu ngi ñu ngi addu kalpe rek eh, kon nag samay kal lañ ay kalam lañu ñoom vieux ba ñoom Moussa ñoom vieux ba ak Moussa ñoom fu ma sant waa sant nañ leen gërëm nañ leen gërëm nañ leen ay garaat yu kawe ay garaat yu kawe li ngeen bëgg seen seen liggéey li ngeen bëgg seen biir liggéey yàlla na ngeen ko am eh, li ngeen bëgg ci liggéey bi li ngeen bëgg ci biir liggéey bi. depuis suba. depuis ci suba. ba léegi ba léegi. fanaanu leen fanaanu leen. yandalu leen yandalu leen. yéen waa eh, eh, kii aspect xaw ma ak ASP. ak ASP. man xaw xaw ma ko. man xamal seen tur yi. wàllu tubaab bi wàllu tubaab bi. day xaw a jafe. xanaa Omar ak Lamine jàngal ma. Omar ma Lamine xanaa ngeen jàngal ma. mais moom man maa ko tane. waaye imaam moom ma ko tane. loolu français ko tane nag. moom moo ko sant nañu waa ASP yi tamit. sant nañu ASP yi. ñu ngi leen di sant. di leen di sant. di leen gërëm di leen di gërëm. Eh, seen liggéey rafet na seen liggéey rafet na. gannaaw gendarme yi gannaaw di dooleel ñu leen di dooleel. yàlla na Sañ Bambara di nuyu Sañ Bambara ak li ko wër ak li ko wër bi nu mu ko doon waxee kilifa bi nu mu ko doon waxee di seexaan di seexaan di Sañ Pël di Sañ Pël di Ngalxayaay di Ngalxayaay di diya di diya di sibasoor ku doo dajal doo dajal gis nañ ñëpp gis nañ ñëpp taxawaay yëpp rafet na yëpp rafet na seexaan seexaan ak ñoom gàmbul ak gàmbul ak ñoom sañpël ak sañpël ngaan ngaan seen liggéey seen liggéey gis nañ ko de gis nañ ko de fu ne fu nekk waxtu bu nekk yéen a ngi ci yéen ngi ci eh, Omar Khalil Omar Khalil saa ma téléphoné saa yu nii la may wax nii la koy wax kon nag sant nañ gërëm nañ gërëm nañ yàlla na yàlla jàppale yàlla na yàlla jàppale yàlla na yàlla dimbale gannaaw loolu. gannaaw loolu. maa ngi nuyu. mu ngi nuyu. ñi ma bokkal. ñi mu bokkal. Cheikh Alpha Hamma. Mawlana Cheikh Alpha Hamma. ñi ma bokkal. ñi mu bokkal. Cheikh Alpha Samba. Mawlana Cheikh Alpha Samba. ko ci imam. jëlee ko ci imam. ba ci Cerno. Eh, mag jigéen ñi tey. jigéen ñi tey. ki ci gën a ndaw. ki ci gën sant nañ sant nañ. gërëm nañ gërëm nañ. seen taxawaay rafet na seen taxawaay rafet na. Abdul Xaadir Kese. na Abdul Xaadir Kese. imaam Kese imaam Kese. munul dara munul seen rakk yi seen jigéen yi ñoo nekk seen ginnaaw. di leen tette di leen taxawal. ndax ñoom ñu ngi si biir néeg yi. waaye ñoom ñoo nekk ci biti. di leen dooleel kon njabootu Mawlana Cheikh Alpha Hamma njabootu Mawlana Cheikh Alpha Samba sant nañ gërëm nañ gërëm nañ ñëpp eh, gannaaw loolu gannaaw loolu di nuyu waa kër docteur di nuyu waa kër docteur docteur Seck docteur Seck Cheikh Diagne Kobar indi na ko fi. ne na ko fi. muy def consultation gratuite. muy def consultation gratuite. Eh, waa hôpital Kaolack tamit. ñoom ak seen directeur Seck. ñoom seen directeur Seck. ak euh, euh, Bari. ak Bari. soxna Bari ñëw nañu. soxna ñëw nañu. nañu lu bëri. indil nañu lu bari pour njaboot yi pour njaboot yi. wàllu santé wàllu santé. ndax feebar yi. bari na bañ na. jàppale ñu si loolu. jàppale leen si loolu. yàlla na yàlla fay kon yàlla na fay. waa Croix-Rouge. ne waa gis nañ leen seen taxawaay rafet na seen guddi gi guddi gi. bëccëg gi bëccëg gi. ba ngeen xëyee fii ba léegi ba léegi. waa Croix-Rouge yéen a ngi taxaw taxaw yéen a ci lu yéen a ngi ci lu ne kon Croix Rouge sant nañ gërëm nañ gërëm nañ leen yàlla na yàlla na yàlla taxaw waa eh, hydraulique waa hydraulique sant nañ leen sant nañ leen gërëm nañ gërëm nañ leen gis nañ ndox bi gis nañ ndox mi kontaan nañ kontaan nañ eh, macha allah macha allah ak xaritu si Alpha Hamma yëpp ak xaritu Mawlana si Alpha Hamma ak yëpp sant nañ ñëpp nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp gis nañ ñëpp doole ñëpp doole ñëpp gis nañ ko gis nañ ko si xar yi ñii ñu ngi si xar yi si ñii si nag yi ñii ñu ngi si nag yi si njëkku nag yi ñii ñu ngi si njëgu nag yi comme sama xaritu wayjur bi comme xaritu wayjur bi di Sanjugu di Sanjugu Kulubali si njëgu nag yi si njëgu nag yi ñu wax ko sant ko sant ko gërëm ko gërëm ko Eh, gannaaw loolu. gannaaw loolu. maa ngi nuyu. mu ne mi ngi nuyu. Eh, gouvernement. gouvernement. maa ngi nuyu gouvernement bi. di nuyu bu Sénégal. maa ngi nuyu eh, préfet bu Kaolack. di nuyu préfet bu Kaolack. Seydina Omar. Seydina Omar. moom ak kooku. yu Omar Khalil yu Omar Khalil. liggéeyam rafet na liggéeyam rafet na. Omar Khalil Omar sant nañ la sant nañ la. gërëm nañ la gërëm na la. doom la doom la. mais may nañu na leen cër. doom xam ne doom boo xam ne. daf leen sës rek. te du ñu rek te du leen mës a rek. Omar ñaan rek moo fi nekk ñaan rek a nañ gërëm nañ sant nañ bu Kaolack ni mu ko defal ni mu ko lépp wax na ma ko lépp na ko. bu Kaolack sant nañ gërëm gërëm nañ. préfet bu Gandiaye préfet bu Gandiaye sant nañ gërëm nañ gërëm nañ. maire bu Dia maire bu Dia. di Tamsir Gueye di Tamsir Gueye. ak adjoint ak adjoint. di maam yàgg di maam ak staffu mairie bi yëpp bi yëpp. ak mairie bu Njebel. ak mairie bu Njebel. Eh, eh, monsieur Ba monsieur Ba. ñëw nañ fi tey tey nañ fi tey. ñëw ziare njaboot gi mooy mairie bu Njebel. mooy mairie bu Njebel. Eh, maire bu bi ak maire bu Tamsir. Seydina Omar mu ne ko Omar mu ne ko. génn na pick-up génn na pick jox ko njaboot gi jox ko njaboot gi. pour liggéey bi pour liggéey bi. kon suñu mbokk bi kon suñu mbokk bi. Haruna Diallo Haruna Diallo. bu Cheikh Habib mu koy defee liggéey bi yemb na liggéey bi. tuutiwul jëlee ko tëngeej jëlee ko tëngeej ba fii mu nekk seen disposition suba ngoon kon Youssou Dansokho jërëjëf yàlla na la yàlla fay Euh, li nga bëgg. li nga bëgg. yaa xam yal na ko yàlla defal. ñu nuyu président. di nuyu président. il faut nuyu ko foog ñu nuyu ko. du politique yàlla moo leen fi teg yàlla moo leen fi teg tey. ay takkandeeru yàlla la ay takkandeeru ci kaw suuf si ci kaw suuf si. seen way seen wi bi. di Cheikh Alpha Hamma. di su fi toogoon. dafay naan. Euh, ku tedd ki ku tedd ki di sanjugu di taalibeem di léppam moo doon jottali kàddoom mu ne mu ne ko nguuri àdduna yi nguuri àdduna yi ay takkandeeru yàlla lañ ci kaw suuf si foog ñu teral leen ku leen teral yàlla teral la ku leen teralul yàlla teral la leen ku jàng suñ mbiru borom ku jàng suñ mbiru borom soo ko xamee soo ko xamee nga gëm yàlla soo gisee état bi nga xam ne mbiru yàlla wala. malaikatul muqarrabin. waaye malaikatul muqarrabin. ñu dar yàlla ñu dar yàlla. yàlla gi. yàlla mun na def lu nekk. mun na wax kun. mun le. fayakun lépp daal di am. waaye day am. ay environ ay environ. Seydina Jibril yore wàllu communication. ci suuf si ci suuf si. diggante mag Seydina Mohamed. aywa e, e, yaakaar naa e, kii. Mikaayil wàllu wërsëg bi wàllu wërsëg bi. ndox bi ndox bi. E, poos yi poos yi moo ko yore moo ko yore. ki yore buftu bi ki yore buftu bi. Azraïl Azraïl. kooku tamit kooku tamit. àdduna suy tukki àdduna suy tukki. mooy ëf mooy ëf. àdduna tukki àdduna tukki. keneen ki keneen ki. Azrafil. Ah, aywa kooku yàlla na fi sori. Azrafil yàlla na fi ah, moom tudd ko moom. Azrafil imaam imaam moo ko ñeme <laughs> imaam moo ñeme kooku. aywa yàlla. yàlla kenn ku ne. kenn ku nekk mu jox la sa mission. mu jox la sa mission. nga doxal ko nga doxal ko. kon nag eh, Alpha Xama dafa ne. dafa ne. mu ne état bi. mu ne état bi. soo leen gisee. soo leen gisee. suñ jógee. suñ jógee. Eh, seen oto yi jóg. seen oto yi jóg. motaar yi jiitu motaar yi jiitu. Eh, force l'ordre yi jiitu. force l'ordre yi jiitu. garde corps jiitu. garde corps jiitu. Eh, soo soo gëmul soo gëmee yàlla. soo gëmee yàlla. da leen di nangul force leen nangul force. soo nangul soo nangul. Eh, eh, soo nangul état bi soo kon nag ngay doon te yàlla jàpp la te yàlla la jox leen. jox leen ñu ñu teg la si yoon ñu teg yoon. kon ku fi yàlla teg tey kon ku fi yàlla teg tey. di Bassirou Diomaye di Bassirou Diomaye. Diomaye Faye Diomaye Faye. yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla dimbali. ak gouvernement bi yëpp. ak premier ministre am Ousmane Sonko. yal na yàlla jàppale yal na yàlla jàppale. ñu bëgg a yóbbu réew mi ñu bëgg a yóbbu fa yegg yal nañ fa yegg jàmm. l'intérieur ministre de l'intérieur eh, ak état bi yëpp état bi yëpp mais nag waaye nag ah ñu ngi leen di dénk ñu ngi leen di dénk ñu góorgóorlu ñu jàppale askan bi jàppale askan bi ah, fu ñu toll nii fu ah, wax ko yombul na wax ko yombul soo ko waxee dañuy ne dañuy ne da ngay xas état bi da ngay xas ngay sànni xeer da ngay sànni xeer sànnuñ xeer de sànniwul xeer de sànnuñ xeer de sànniwul xeer ñun ñoom carte Seydina Mohamed lañ yore la loolu la ñu woon leen woon baayam loolu la ko woon woon. mag yëpp loolu la mag yëpp loolu la ñu woon. mais waaye. jamono moo ko laaj jamono moo ko laaj. il ñu dox ci foog ñu dox ci. mais nag waaye nag. Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye. ak sa premier ministre ak sa premier ministre. ñu góorgóorlu ngeen góorgóorlu. askan bi sonn nañu. askan bi sonn nañu askan bi sonn nañu. bu wóor réew mi wóor réew mi. soo nekkee si néeg yi mag yi soo nekkee si taax taax yi. suñ suñ néeg yi. néegu ñoom si alfa xama néegu Mawlana si alfa xama yi. du sama néeg de. soo nekkee si néeg yi eh, dañuy foog ne dañuy foog ne. information ñoo lay informé yenn buy ñëw de. waaye da fi nekk. baay bi moo la fi teg. baay teg. maam bi la fi maam bi la fi. askan bi si yow dañuy nit ñoo ñëw moo ñëw ci bés. moo ñëw ci bés. ku la koy jox ku la koy jox. ak diya ak diya. kenn nit lay doon. neuf eh, personnes. neuf personnes yi. Eh, uñu ma ma sekere. uñul sekere. maa ngi jégalu ngi jégalu bu baax a baax. uñul sekere de ñii ñëw. waaye ñii ñëw. sama kër taalul tey. ay kër taalul tey. fanaan fanaanul lii fanaanu fa tey. lii fanaanu fa tey. xam nga loolu neexul. mu ne eh, borom kër. borom kër. jàkkaarloog sa njaboot jàkkaarloog sa njaboot. añuñ añuñ. reeruñ mbaa reeruñ mbaa ndekkiwuñ. moom si bosam la koy xool su suñu xaw a añ bi su xaw naaj añ bi su xawee naaj ñuy daw diggante ñu commencé daw diggante kër yi xam nga jàllo xel ñi sant ba suñ ko déggee ñi sant ba suñ ko déggee dañ ko sànni kon njaboot yëpp benn la kon njaboot yëpp benn lañ kon bi état bi nañ góorgóorlu nañ góorgóorlu jàppale baadoo la jàppale baadoo la askan sonn nañ askan réew mi metti na réew mi métti na njëg yi seer na ku amul ku amul doo jot doo jot ah ku am ku am mooy jot mooy soo amee njëg bu néew soo amee njëg doo jot ah, mu ne kon Sénégal metti na. Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye. Ousmane Sonko Ousmane Sonko. bu baax a baax. mbëkk mi. ne mbëkk mi. xale nuñ koy waxee. xale koy waxee. Barça mbaa Barça. Barça mbaa Barça. yàlla ngeen dem Barça. yàlla ngeen dem Barça. waaye bu leen demagum Barça. waaye Euh, yéen ay yaakaaru Sénégal yéen ay yaakaaru Sénégal. xale xale. mooy yaakaaru réew mooy yaakaaru réew. xale mooy jàng xale mooy jàng. am ay diplôme am ay diplôme am. samp réew réew. mais yéen. waaye yéen su ngeen jaaree si mbëkk mi ngeen si mbëkk mi. yéen yëpp ngeen dee si géej yéen yëpp ngeen dee si géej. ay waa mag yi suñ jeexee. kon mag yi xale suñ xale yi suñ jeexee. xale yi demee jóge fi ñun suñ demee jóge fi. mooy yore réew mi ngeen góorgóorlu ngeen delloo seen xel am am nekkul ne dëkku tubaab yi nekkul ne dëkku tubaab yi de am am nekkul Sañ Bambara nekkul Sañ Bambara am am nekkul Sibassor nekkul Sibassor nekkul Dakar nekkul Dakar mun nga nekk mun nga nekk ajak jak ajak jak ci xuntu eh, sànqaleñ ci xuntu sànqaleñ sa wërsëg sa wërsëg daf lay fekk foofa mais sa vie waaye sa vie ta dund nga sa dund nga sa dund nga jël ko nga jël ko teg ko ci xottu gerte ko ci gerte ci mbëkk mi ci mbëkk mi ci géej gi ci géej gi métti na na naufrage bi passé fan yi mu ne naufrage bi passé fan yi fii Mbour fii Mbour ñu ngi leen di jaale ñu ngi leen di jaale yàlla na yàlla yërëm yàlla na yàlla yërëm yàlla na yàlla xare ajana way jur yi ak waa kër seen i waa kër ak seen i waa kër yàlla na yàlla may xolu muñ yàlla na yàlla may xolu muñ yàlla na fi gëj yàlla na fi gëj kon ba tey état bi kon ba tey état bi loolu seen góorgóorlu loolu seen góorgóorlu la yéen a yore gendarme yéen a yore gendarme yéen a yore militaire yéen a yore police yi am ngeen ay gaal am ngeen ay gaal am ngeen ay pexe aar géej gi aar géej gi ba xale yi mën a toog mën a toog ngeen utal leen liggéey jox leen ko jox leen ko. soo toogalee xale tamit soo da nga koy jox da koy jox. lu muy lu muy lu muy suturloo. lu muy suturloo. soo ko soo ko gaaree. ko dara ko dara. am bu mu am bu mu gàccee. bu war a dog bu a defu ko defu ko. dana si leneen. loolu mooy waral ay agressé yu bëri loolu mooy yu bëri. parce doomu aadama ndax doomu aadama. am am am dafa neex dafa neex. soo àndul ak ngor rek soo ko eh, am na. sañu ko am na. waa borom dëkk bi am na ñooñu samay xarit lañ mooy samay xay xaritam la exemple foofu mooy exemple si ñoom ñooñu suñu amee ñooñu suñu amee Abdou Khader amul Abdou Khader amul su amul eh, eh, sa xaw ma savoir vivre lañ koy wax xaw ma soo amul savoir vivre tuuti amoo xalaat bu rafet amul xalaat bu rafet nga gëm yàlla nga gëm yàlla doo mun a am dal doo mun a am dal nga jël sa paaka nga jël sa paaka taxaw si eh, yoon bi nga taxaw si yoon nga gis benn borom dara nga gis borom dara nga dagg poosam nga dagg poosam su bañee su bañee nga yóbbu ko àllaaxira lii ko fi jar mu ne lii lu ko fi jar postulor suñ la téye postulor suñ la téye nga dem nga dem yow ndungu siin nga dem ndungu siin ay waa lii moo waral ne lii moo waral xale yi nañ leen jàppale ñu am xëy ñu am xëy gannaaw loolu gannaaw loolu eh, ne na reyante bi di nekk si réew mi di nekk si réew mi di nekk si àdduna bi di nekk si àdduna bi eh, yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal yàlla bi metti na reyante rek reyante rek terante te reyante di di tër doomu aadama di tër doomu aadama comme xar comme xar di ko téye doomu aadama di téye doomu aadama di ko jàmmate comme xaj comme xaj mu dee mu dee mais lii pour ne lii pour lan lii pour lan lii pour lan nañ jaamu yàlla nañ jaamu yàlla topp Seydina Mohamed topp Seydina Mohamed ragal yàlla suñ ko suñ ko defee wallaahi wallaahi xool su leeree su leeree yenn kaccoor yi yàlla du ci dugal moom reyante gi métti na métti na nañ ci góor ba tey état bi moo ci am pexe ñoo yore gendarme yi ñoo yore policier yi nañ ci góorlu aywa ñu ngi ñaan di ñaan nawet bi nawet gi dugg nañ ci bisimilah rahmaan rahim yal nañ koy gën a alhamdulilah rabil alamin ay taw yu barkeel taw yu barkeel taw bu ànd ak eh, jàmm taw bu ànd ak jàmm ñu récolté ci lu bëri bu mu nekk suñ eh, nawet bu mujj bu mu nekk yàlla bu mu nekk suñ nawet bu mujj béykat béykat amul leneen amul leneen bu dul nawet kon nag état bi nañ joxe jiw nañ joxe jiw ñu liggéey suuf si eh, jàmm am dund am dund am. réew réew yi raw rek. réew yi raw. Eh, béy rek moo tax ñu raw béy moo tax ñu raw. kon nañu góorgóorlu kon ñu dolli góorgóorlu. kon nag eh, Sénégal. ne Sénégal. yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla jàmm. jàmm ci la lépp xëy ci la lépp fitna yi nekk si yeneen réew yi fitna yi nekk si yeneen réew yi. yàlla nañ ci dégg doy yàlla nañ ci dégg doy yaa rabbi. mu fa nekk tamit mu fa nekk tamit. yàlla na ci yàlla teg loxo. yàlla na ci yàlla teg loxo. fitna yi métti na. fitna yi métti Mali. Mali. suñu pays la pays voisin la. yi la lu fa xaw jamono ji lu fa jamono ji. métti na métti na. ay islamiste ay islamiste. ay terroriste ay reyante di reyante. gën a jullit nga gën a jullit nga. di rey sa moromu jullit. muy. Niger muy Niger. muy Burkina muy Burkina. muy ñoom Tchad. muy Tchad. ku lim doo dajal fitna yaa ngi fu ci réew yi fitna yaa kon réew yi. yal na ko yàlla dalal fitna yi fa nekk fitna yal na jeex. yal na jeex. waa Gaza. ñoom mbokk jullit yi mbokk jullit yal na yàlla tinu. yal na yàlla yàlla tinu. yal na yàlla na yàlla teg loxom ci kaw. yal yal na ko yàlla alak. yal yal na ko yàlla toroxal yal na yàlla toroxal Israël yal na ko yàlla fitna yal na yal na ko yàlla teg lu métti yal na ko yàlla teg lu métti tal jullit yàlla bu yal na ko yàlla këpp ci kawam yàlla na mën na ko yal na ko yàlla yal def kon nag kon nag guddi gi sori na guddi na moo ak imaam moo ak imaam ñoo tardel gaay ñoo ngi jéggalu bu baax màggat màggataguñ. màggataguñ. ah mais mais at yaa ngi dem. waaye at yaa ngi dem ndànk-ndànk. yéen doo recevoir yéen doo recevoir. guddi gi tamit guddi gi tamit. nga ñëw ay minuit nga ñëw ay minuit. ay une heure ay une heure. nga ñëw toog fi nga ñëw toog ah ba 5 eh, 5 heures 6 heures. ba 5 heures 6 heures. Ah, day métti de at ah, yaa ngi dem ndànk ndànk ngi dem ndànk. njaboot gi njaboot gi ngeen nangul ñu ko ngeen nangul leen ko. waaw eh, yaakaar na Modou Seck nuyu naa ko. Modou Seck tamit ñu ngi koy nuyu Modou Seck tamit ñu ngi koy nuyu. Eh, di ko gërëm di ko gërëm. ak Pape bu Asamariko ak bu Asamariko. li ma sol nii ni mu sol nii. moo ko jox moo ko ko jox. ak njabootu Sañ Bambara yëpp ak njabootu gi yëpp. Modou Seck Modou Seck. ak ay xaritam ak ay xaritam. sant nañ leen sant nañ leen gërëm nañ leen lu muy def si njaboot gi muy def si njaboot gi. gis nañ ko gis nañ ko. Modou Seck Modou Seck. day jël eh, Dakar. day jóge dakaar ak ay ak ay ak mbooloom. ay nagam ak ay nagam. ñëw def lu nekk. ñëw def lu nekk fii kon Modou Seck. Eh, sant nañ sant nañ la gërëm nañ la jërëjëf jërëjëf te bul wàccagum waar gaangoog eh, fi nga bëgg a yegg fi nga bëgg a yegg yàlla na nga fa yegg eh, Pape Coulibaly ne eh, Pape Coulibaly bu Asamariko te mu nekk Gambie sant nañ gërëm nañ ñuy def si ñoom gis nañ ko rakk bi Youssou sant nañ ko gërëm nañ ko ak stafam Lamine Konaté ñoom Issa Doudou Alpha Sow ñoom ñëpp moom alaaji jànna doxab saxo ñoom ñëpp moo trawaré Cheikh Abou Diarra sant nañ ñëpp ku lim doo dajal ne xammaa Kulubali président sant ci kanam ndey saaxo sant nañ leen ne Seydina Omar ah, li nga ko laaj danañ si def tuuti rek ay taalibe lañ ay taalibe lañ ay taalibe lañ waaye say maam liñ fi bàyyi eh, ba tey ñu ne ndox fu mu doon taa ñu ne ndox fu mu doon taa soo tey soo fa demee dañ fa fekk tepp tepp ñun eh, yaa fi sës tax a falu moo leen tax a falu mais ñun duñ dara waaye ñoom dañ ay ay taalibe la ay taalibe la déedéet ko rek wax ko rek ñoom ay taal wax ko rek jotale ko rek ay taalibe la ñun duñ ay dara <laughs> ñoom duñu dara kilifa yi kilifa yi ñoo ñu maa ngi jéggal wàllu mu ngi jéggal wàllu nijaayam waa kulaar waa kulaar waa njaayeen waa njaayeen saama tukulóor saama tukulóor Mamadou Diallo du Diallo ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen gërëm gis nañ ñëpp gis nañ ñëpp sant nañ gërëm nañ aywa Seydina Omar na Seydina Omar aywa ak sunu sama dëkku papa mu na ak dëkk wayjur bi kii na nekk borom dëkk bi foofu muy Sandiouga mun na nekk borom dëkk bi di wendu muy wendu moo ko fàttali ne imaam moo ko fàttali léegi doomu aadama kese kese doomu aadama kese munoo dem munoo dem il faut nga am ñi lay jàppale imaam moo ko fàttali léegi waa waa wendu mooy sama dëkku papa mooy dëkku wayjur bi sama eh, waa wendu waa wendu ñooy samay njaatigu papa ñoo may njaatigu wayjur bi lañ ñoo ko may suuf ñoo ko may suuf jox ko kër jox ko kër jox ko ay tool ay tool ba tey ñu ngi foofu ba tey ñu ngi foofa njaboot yaa ngi yëngu foofu fay yëngu ñii ñii kii toog nii kii toog nii moom lañ àndaloon foofu moom lañ àndaloon foofu moo nekkoon jawrin bi foofu moo nekkoon bi foofu waa wendu waa wendu sant nañ sant nañ gërëm nañ gërëm nañ gis nañ leen gis nañ leen seen taxawaay seen doole seen doole seen alal seen alal eh, yàlla na yàlla yàlla fay yàlla na yàlla dimbale képp ku jóge si yéen képp ku jóge si yéen eh, yàlla na tekki yàlla na tekki jigéen jigéen ñi eh, góorgóorlu leen leen jigéen jigéen sëy sëy jigéen jigéen eh, noppil noppil noppi naa toog naa doom boo jur doom boo jur est-ce que lañ koy wax toogal waaye toogal fi ma lijjanti ko sa papa doom bi foo ko teg foofu nga koy fekkaat i sigi ni baba ka ɲɛnabɔ i sigi ni baba ka ɲɛnabɔ n'a y'a ɲɛnabɔ n'a y'a ɲɛnabɔ den tɛ foyi latigɛ den tɛ foyi latigɛ den tɛ foyi latigɛ dɛ il faut modem si bambara bi tuuti nka il faut lafo buga wax wala lafo buga wax jigéen jigéen seyal seyal jigéen jigéen góor du morom góor du morom sang la sang la eh, eh, góor tamit góor tamit yërëm leen jigéen ñi yërëm leen jigéen ñi góor tamit góor tamit yërëm leen jigéen ñi yërëm leen jigéen ñi fonk leen ngeen fonk leen may leen cër may leen cër góor boo gis góor boo gis fonkal boo gis fonkal boo gis jigéen moo ko jur fonkal boo gis fonkal boo gis jigéen moo nekk jigéen moo nekk si gannaaw tubaab bi dañ koy wax sax tubaab mag boo gis jigéen bu mag moo nekk jigéen bu mag kon jigéen seen rafet na ci société bi ay lu gendarme yi eh, ñoom ay civil lañ waa saañ ak ñi ko wër sant na leen gërëm na leen am nañu jëlee paas réew ba réew ñëw fii jàppale ko sant na leen gërëm na leen Seydina Omar. Seydina Omar. aywa ba tey mu laaj noonu. ba li nga laaj. aywa soo ne soo bindee fatiha ndax fatiha ne si faaw kuli seyin la ne Mawlana si Alpha moo ko doon wax fatiha dana defar lépp dana defar lépp dana jeexal feebar dana joxe alal dana joxe alal wërsëg dana tukkil àdduna dana fatiha dana yàq dana defar waaye bu leen yàq yàq baaxul yàlla nañ ci yàlla musal nañ fexe poos yi fees poos yi fees baax de. ne dana baax de. mais poos yi feesul. waaye poos yi feesul. ah jigéen ñi. ne jigéen ñi. dañ lay tàccu léegi léegi dañ lay tàccu léegi léegi. léegi ñu tàccu la. léegi ñu tàccu la de. aywa dépasse su matul. dépasse su matul. borom kër dina doy waar day doy waar de. mais soo bindee Fatiha. waaw soo bindee Fatiha. nga yegg si yaakana bu yaakana say. nga àgg si yaakana bu doo yaakana sayin. nga taxrir ko. nga taxrir ko. ba 313. ba 313. mu nekk jays. mu nekk jays. ñetti téeméer ñett téeméer ak fukk ak fukk ak ñett mu nekk badar mu nekk badar Seydina Mohamed Seydina Mohamed loolu la cartonné kéeféer yi limbu limbu limbu limbu garaaw ne limbu garaw soo fa yeggee soo fa yeggee. mbaa su la neexee su la neexee. nga def ko nga def ko. adadul xalaayix adadul xalaayix. loolu du bind benn fan de loolu du bind benn fan de. comme taalibe yi waaye comme taalibe yi. soo joxee kii njëgu kii njëgu guro. dinañ ko dinañ ko liggéey dinañ la ko liggéeyal. adadul xalaayix. adadul xalaayix. 500 ñaata la 500. 5995 5995. muy adadul xalaayix muy adadul xalaayix. nga bind ko nga bind ko. ba mu jeex ba mu jeex. su soo paree soo paree. yaakaar na bul yaakaar na say yaakaar na bul yi. ba mu jeex ba mu jeex. nga jeexal nga jeexal aaya bi nga jeexal aaya bi. xejul benn alluwa ne xejul ci benn alluwa soo ko bindee soo ko bindee da ngay jël si da soo peinture am kubéer yi nga raxas ko ci naaj nga bi nga jël bii nga jël bii nga bind balaa ngay pare bii wow nga raxasaat ko ba mu nekk ba mu nekk adadul xalaay di jëy si nga jeexal aaya bi pël yi benn garab nañ ko wax. pël yi nañu wax benn garab. namaari namaari. yaakaar na pël yi xam nañ ko. yaakaar na yi xam nañ ko. namaari namaari. fii la nekkoon eh, man fii laa ko doon utee gannaaw gannaaw ngaawul. gannaaw ngaawul fii dex bi fi nekk dex bi fi nekk. suñ diggante ak ak ak sañ pël. suñ pël. namaari namaari pël yi ñoo koy loolu pël yi ñoo koy waxee loolu boo xam nga ñun pël yi moom xaalis rek ba pare moom nañ leen bàyyi ak ak seen béy bi <laughs> mais soo ko jëlee waaw soo ko jëlee muy xas bi muy xas bi muy doom muy doom bi muy bant bi muy bant bi muy e, xob bi muy xob bi mais e, doom bi waaye doom bi moo gën a garaaw moo gën a garaaw soo ko bàyyee soo ko bàyyee mu wow mu wow ba mel ni marron ba mel ni marron mu mu tuur ko ci suuf mu tuur ko ci suuf baa mu lonk ci kaw baa mu lonk ci kaw nga dindi ko nga dindi ko ñëw e, kii ko wol ko ko ma nga koy wol nga wol ko nga wol ko ba mu mel ni sunguf ba mu mel ni sunguf nga jël ko nga jël ko teg ko ci naaj teg ko ci naaj bi ba mu wow ba mu wow ba mu koŋ ba mu wow koŋ nga nga nga dëbaat ko ba mu mel ni sunguf ba mel ni sunguf nga lay ko nga lay ko comme sunguf comme cere comme cere nga jël ko nga jël ko nga sotti ko ci saafara bi sotti ko ci saafara bi moom sungufu namaari moom sungufu namaari eh, kol yi ñoo koy wooye namaari wetu sañpol mu ngi wetu sañpol gi moom foofu la ko noo wutee ku ñuy laaj dépense nga war a am xaalis ku ñuy laaj dépense nga war a am xaalis li ma leen di wax nii li ma leen di wax nii man moom mii sama bopp boppam dama koy def saa su nekk koy def saa su nekk ah, xaalis su ñëwul du sotti de mm, xaalis su ñëwul ah, xam ne si dara de <laughs> xam ne si dara soo ko ci defee soo ko ci defee nga sangu ko eh, nga def ko nga def ko su fekkee lim bi bu dee lim bi dina sori dina sori nga def ko ñett. nga def ko ñett. mbaa nga def ko neuf. mbaa nga def ko neuf. mbaa nga def ko benn. mbaa nga def ko benn. mbaa nga def ko sept. mbaa nga def ko sept. mbaa nga def ko treize. mbaa nga def ko treize. mbaa nga def ko quinze. mbaa nga def ko quinze. mbaa ko dix-sept. mbaa nga def ko dix-sept. mbaa dix neuf. mbaa dix neuf. mbaa vingt et un. vingt trois. vingt cinq. vingt noonu lay demee. noonu lay du du am paire. du am paire. am impair. mais soo ko sàngee soo ko loolu. wallaahi. sa wërsëg sa wërsëg sa loxo lay tegu sa yaram balaa muy wow sa yaram moo wow. wallaahi dina am jaamu yàlla bu ñëw dina am jaamu yàlla gu ñëw. koŋ sëriñ bi ah sëriñ gëj a dégg gëj naa fi lool gëj naa fi lool. Eh, jaaroon naa fi nga defal ma ay ñaan nga bi nangu na moom fàtte na. moom fàtte na doomu aadama yi léegi. insaan dañuy yomb fàtte waaye yàlla day tàggat jaam mu ñëw ziyaare la génne lu rëy teg ko sa poos dépassu. na dépassu. weer ñaari weer ñaari weer keneen su ñëwul sax keneen naan ndoxu galaas da ngay sa ndoxu galaas. Eh, jaaxaan di raay sa kol di raay sa kol. di xaran rek borom kër su amul wax. borom kër waxtu julli su jotee nga jóg julli. jaamu yàlla sa xel dal. waaye poos su amul dara xel du dal de. waxtu julli su jotee imaam su noddee imaam ne imaam dafa am jot. yow eh, sa dépense daa te njëgu courant daa mat waaw seel nag baa ngi ñëw ak facture man aw ma ko lu muy mel doo mën jàmm yàlla de kër foog nga am xaalis doomu aadama sax ngor baax na ci ngor baax na ci dànk baax na ci soo ko amul nga sante ko yàlla nga sante ko yàlla. mais soo ko amee tamit. waaw soo ko amee it. defar dund. day defar dund. ne. Eh, wet gi. ak euh, baadoole ak baadoole dañoo takkaloo soo soo ñàkkee rek soo ñàkkee rek wet gi soo ñàkkee rek mooy wolof li ñuy wax mooy wolof li ñuy nga ñànki mel ni gaynde mooy waral agresseur yi kon euh, doomu aadama kon doomu aadama da war a am xaalis saa su nekk soo lambee sa poos dafa am kese kese waaye soo lambee nga mel ni bambara yi loolu dafa doy waar loolu day doy waar. lii namaari waaye lii namaari bi. koo ko def koo ko def. sa wërsëg sa wërsëg saa su ne saa su ne sa loxo lay tegu sa loxo lay tegu. kon nag Seydina Omar kon nag Seydina Omar. lii mooy lii mooy. sërëcëy ren taalibe yi ngeen téye ko barke ku ko def ku ko def. wërsëg ñëw wërsëg ñëw ku ko def. alal ñëw alal ñëw ku ko ñëw ku ko njëf ku ko def. ay millions ñëw ay millions ñëw soo yàggee ay milliards fekk la fa wal yàlla yàlla dina ko def yàlla dina ko def caal fa xam ma moo ko ko jox Seydina Omar san san dunay maam la kon na jël ko wax ji eh, du ci rafet eh, yàlla la ak ay environnement ak ay rakam ñoom imaam lu ci xaw a doy waar ngeen xam ne doomu aadama ji la sant nañ leen gërëm nañ leen yàlla nañ ko fekkee déwén yàlla nañ ko fekkee déwén yàlla nañ yàlla yàlla nañ yàlla taxaw wërsëg bu yaatu bu ànd ak gudd fan bi zaahi rasulillah sallallahu ngeen téye ko ñu indi ko ñu indi ko jox ko suñ kilifa bi ñu jox ko kilifa gi sànjugu sànjugu mu mu jox ko mu jox ko ku mu koy ku koy jox ku mu koy jox mu ko mu ko sérif yi yi ngeen téye ko ndànk ndànk ngeen téye ko ndànk eh, eh, bu bu kenn bu kenn xeeb eh, lu am rek lu am rek ku am dërëm ku am dërëm nga joxe nga joxe ku am junni ku am junni nga nga joxe ku am ay junni am fukki junni loo def ci sérif yi loo def ci sérif yi rek yàlla fay la ko loolu moo nekkoon kaddu yi moo nekkoon kaddu yi ngeen jégal ko dañoo fàtte dafa fàtte sérif yi nekkul ne ñoom leen dañ leen dañ leen dañ leen kii dañ leen bàyyi côté dañ leen bàyyi côté xel xel bee fàttule xel bee fàttule incha allah maa di jégalu bu baax maa ngi jégalu bu ku ne Seydina Mohamed ku ne Seydina Mohamed yéen ay askanam yéen ay askanam kenn mu leen fàtte kenn mu leen